mbokk yi nuyu naa leen monsieur ministre euh, du commerce euh, bind naa la benn bataaxal euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet tontu woo ma nag bataaxal boobu maa ngi ci doon waxtaan ak yow ci serviette hygiénique yi suñu mbokk jigéen ñi di jëfandikoo ma laaj la serviette hygiénique yooyu fan lay jóge naka lay duggee Sénégal yan contrôle lañ ciy def ma laaj la itam serviette hygiénique yooyu ndax xam nga ci benn bu ñuy woowee soft care jigéen yu bëri ñu ngi naxarlu soft care boobu lu mu jur ci ñoom est-ce que dégg nga ko ak lan nga mën a def ci soft care boobu beneen bi mooy euh, njëgu serviette hygiénique dafa cher ñi ëpp ci jigéen ñi nekk ci réew mi amuñu njëgu serviette hygiénique lan ngeen si mën a def en attendant président Ousmane Sonko nekk cinquième président du Sénégal di ci indi ay saafara ñaareel bi monsieur le ministre du commerce yan assurance ak garantie nga mën a jox sénégalais yi ne njëgu soble du yokk dootul cher fii ak 24 février 2024 ndaxte moo leen fi dese à partir du 25 février le cinquième président de la République du Sénégal incha allah Ousmane Sonko indi ci ay tontu yan garantie nga mun a jox suñu askan ci fànn boobu ñun nag Sénégal li ñu dal dafa xaw a doy waar ndaxte Hollande 41 530 kilomètres carrés Sénégal 197 000 kilomètres carrés Hollande mooy jox Sénégal mu lekk te Sénégal mot na ñeenti yoon 4,7 fois. Sénégal mot na 4,7 fois la Hollande Hollande moo ñuy jox ñu lekk Hollande moo ñuy jox soble loolu foog mu soppeeku incha allah à partir de février 2024 avec Ousmane Sonko cinquième président du Sénégal monsieur le ministre du commerce 27 mars bind naa la benn lettre 27 mars 2022 bind naa la benn lettre lettre boobu. ma bindaat la ko exactement le 3 août boobu dafa amoon en objet je cite impact de China Mall hypermarché exclusive Auchan Carrefour etc sur le commerce les commerçants sénégalais et lien avec l'immigration irrégulière et l'augmentation de la pauvreté non boobu waxuma ne tontoo ma serviette hygiénique yi laa wax ne tontogooma dama ne le 27 mars bind naa la le trois août ma bindaat la la même lettre et si lettre bi li ma ci intéressé mooy dama la doon jéem a wan laaj yéen gouvernement bi ndax gisu leen ne am na un lien entre grande surface yii taxaw fii yëpp ci réew mi ak immigration irrégulière bien sûr boo ci boolee njaayum géej bi bien sûr boo ci boolee wanteer géej bi tubaab bi boo ci boolee Euh, situation nekkinu liggéeykat yi te mu métti ci entreprise yi donc lii xew nii te ñu koy gis muy suñuy doom di ko dund ak suñuy rakk du hasard pour man ce sont des politiques antinationales des politiques assassines des politiques criminelles des politiques meurtrières yoo xam ne moo jur li nga xam ne moom la suñu doom yi di dund ndaw yi yéen lay waxal Ousmane Sonko nee na ku ci dee ci yéen mel na ni rakkam moo dee ku ci dee ci yéen mel na ni doomam moo dee toog leen fii 25 février ñu changé président Ousmane Sonko cinquième président